Senghane Senghor euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Ndeye Comba. voilà Senghane Senghor nga nekk chargé des affaires juridiques foofule ca rado euh, déjà ma lay laaj sa xalaat euh, ci état wu santé wu Ousmane Sonko bi nga xam ne moo occupé actualité bi mais aussi alerte bi nga xam ni ay avocats ñu ngi koy lancé depuis un certain temps loo si xalaat. waa liñ ci xalaat mooy état de santé Ousmane Sonko ni mu jaaxale ay avocat jaaxalee ko Sénégalais yi peut-être moom la jaaxalee sax ñëpp ñi xam Ousmane Sonko ci àdduna bi parce que information yi ñuy remonté ci mbiri Ousmane Sonko du information yoo xam dafay rassuré information yuy andi jaaxle la andi ko yokk parce que bu demee ba amatul de conscience maîtriser tul ay ay ay atam est-ce que kooku xam na sax ne moom ci kaso la nekk ba léegi <coughs> est-ce que kooku situation bi mu toll ci wér-gu-yaram est-ce que ku ñu war a denc ci kaso la question yooyu mooy yi ñu nekk di posé wu fi mu parce que état bi warul dem ak moom ba mu nekk patate chaude ci ay loxoom ba du xam nu mu koy def mu door a commencé ut solution na na bi xool parce que appliquer loi yi du coxor justifié wul méchanceté nit am na état fu muy toll place am du nekk prison donc na état bi évaluer bu ko laajee mais Ousmane Sonko dafa am garantie de représentativité ci réew mi la dëkk nekk fi maire am fi ay mbokk ñu xam ko xam boo xam mënta daw fenn jëm ci àdduna bi dañ ko génnee mu dem faju bu wéree bu ko soo justice soxlaa mu convoqué loolu daal mm. jàpp nañ ne ci solution yi gën a sage xëy na ci la bokk même bu fekkee ay avocat am dañ doon wax euh, que vraiment état wu santé Ousmane Sonko euh, mayetu ko mu nekk ci ci kaso bi euh, foog mu dem si ay mbokkam mais aussi ñu gis ni am na benn document boo xam ni c'est confidentiel joge ci administration pénitentiaire bi di wax encore wala di confirmer sax li nga xam ni peut-être avocat Sonko yi ñu ngi ko doon wax déjà naka nga jàngatee euh, document confidentiel boobu jógee ci administration pénitentiaire bi. <coughs> waaw comme li nga wax document boobu dafay confirmer li avocat mi doon wax te ñenn ñi di ko weddi parce que administration pénitentiaire source bu officielle la administration pénitentiaire ñoom lañ dénk Ousmane Sonko fi mu ne nii maintenant nag bu confidentiel yaa ko wax nan lañ def mu retrouver wu ci place publique bi parce que document bu confidentiel mooy document boo xam ne ñiñ ko destiné rek ñoo ko war a gis ñi tax ñu ñu bind ko ñoom ñoo ko war a gis keneen waru ko gis te document bi ñëpp gis nañ ko. léegi euh, ñëpp gis nañ ko tey jii euh, en tant que juriste dañ lay laaj aussi euh, lan moo war a nekk sanction yi ci ki nga xamante ni moom moo divulguer document boobule lan la si yoon wax exactement. waaw dina jafe ins fi ñu toll nii ñu mën a wax ne lii la yoon wax ku ko def lii lañ lay sanctionné parce que lu tax boo xoolee communiqué bi procureur publié procureur sax tuddul benn infraction dafa ne ñi ko def panoplie d'information mooy benn list infraction mën nañ leen cee toppee te infraction yi bu nekk buñ nee lii nga def dañ naan sanction bi lii la lii nga def sanction lii la comme nee na moom ubbi na enquête bu ubbee buñ enquêté bu pare danañ mën a wax clairement ni ñi ko def kat lii lañ leen di ak lii ak lii ak lii bu boobaa dañuy mën a wax ne comme lii lañ leen di topp lii la ñuy encourir comme sanction mais fi ne nii nii nii xaw na teel a wax parce que dara leeragul lépp ci ci dossier bi dafa xaw agum am imprécision moo ko wër. Mm-hmm. mais bu fekkee bu fekkee ki ko def cinquante cinq dafa nekk ci biir administration pénitentiaire dafa bokk ci ñoom en fait. dana xaw a teel tam ñu joxoñ administration pénitentiaire parce que document bu mel noonu. bu bu ko administration pénitentiaire génnee aussi mais dana jaar ci yeneen loxo dana dem ministère bu demee ministère ci loxo kan ak kan la jaar donc fi muy jaar ba mën a génn ci bi fi bari na donc buñ ci taxal waa administration pénitentiaire buñ ci joxoñ kenn mais nañu xaar ba xam lan la enquête bi di wone parce que enquête bi sax mën na génn suba effectivement ñu xam ne ci diw la génne mais mu génn fekk moom teyu ko mu génn par erreur bu boobaa sanction bi mën na ute ak bu fekkee ki ko def def ko def tey ko wala def ko def parce que dañ ko ger mu def ko donc gis nga taxawaay yi dafay ute en fonction de infraction bi nan la demee document bi nan la génnee kon li ëpp prudence ci ñun ñoom ñu bañ a tooñ kenn mooy nañ xaar bi enquête procureur bi génn procureur nag li mu wax aussi moo ko war lu garawee noonu bu amee da ngay ubbi enquête parce que dañoo violer ay droit Ousmane ko parce que li ñu génnee ay données personnelles am la yoo xam ne warul retrouver wu ci mbedd bi mais gëm naa ne bu ko procureur loon aussi ay avocat am daañu porter plainte et même nii mu ko def moom bu génnee ba wax ne man lii laa nara def ay avocat am danañ ko xool ba xam ndax doy na leen wala est-ce que duñ saisir bi pour telle ou telle donc loolu lépp dafa laxasu ci dossier bi di xaar teel na pour ñu prononcer wu ci d' accord euh, léegi ba est ce que aussi euh, parce que doon nañ wax ni Ousmane Sonko euh, dafa bëgg ñu delloo ko prison bu Sébikotane en tout cas si xabaar yi ak euh, santé bi nga xam ni euh, tolluwaayu santéem est ce que jàpp nga ni idée bu baax la ñu jël ko di ko euh, delloo prison bu Sébikotane. Ousmane Sonko état bi ñu décrire te mu ne ci jàpp nañ ne mënul dellu prison de Sébikotane parce que prison Sébikotane ña ko fa ñi ci ëpp duñ ay médecin peut am nañ infirmerie buñ jaaxlee yóbbu fa mais même infirmerie ba bu jaaxlee ci hôpitaux yi lay évacuer te situation bi ñu décriral mooy moom dafa war a nekk ci hôpital ñu di ko surveiller en attendant donc moom même bu dee loolu mooy décision parce que nit dana toll aussi ci situation boo xam ne ci wàlli wér-gu-yaram yenn décision yi buñ koy jël du moom la ñuy laaj mën na yegg koo xam ne ay mbokkam la ñuy laaj balaa ñoo jël yenn décision yi kon place bi mu nekk fi ne di hôpital fa la war a nekk ñu di ko surveiller di ko faj ba ba muy nekkaat ci état bu mu mën a delloo ci prison wala ñu bàyyi ko mu dem këram faju ba ba muy wér dernière question Senghane euh, Senghor moom mooy naka nga gisee décision xalif général euh, des Mourides ñuy waajal élection présidentielle yi daanaka ñetti weer kepp moo si des moom mu ne du recevoir euh, benn candidat boo xam ni bokk nga ci jongante bi ak wala sax di wax si lépp loo xamante ni soxal na élection présidentielle bu 2024 naka nga gisee décision bi mu jël waa décision xalif général des mourides boobu sëñ Sidi Muxtaar dañ koy rafetlu parce que décision bu ànd tam ak jamono la xalif général des mourides kilifa la goo xam ne mënta dëkk di def yi nit yi zaayir yi di def mooy tout nekk ci ay politique wax waxi meeting waxi lii waxi diw parce que dëkk boo xam ne nee dañuy jël fiche parrainage ñu ne ñeenti téeméeri nit ak lu teg moo dem jëli fiche parrainage ñoom ñëpp ñu ne candidat lañ pour pour pour nekk euh, président de la république mais xalif daal ak ñi ko wër bu ñu jëlul décision bu mel noonu mais moom dañuy bëgg di dugg di génn ci moom tout le temps parce que ku nekk day bëgg dem foofu ne dama ñaan lu ji bëgg ñu médiatiser sa ñëw foofu. ndax boo fa jógee nga dem uti parrainage ndax taalibe yi mën ne ah diw kat am na ngërëmi sëriñ bi wala am na ñaanam donc pour noppal ñëpp il est bon que mu wax leen ne moom fii ba fu euh, semaine yooyu yëpp moom du recevoir kenn ñu dem liggéeyi politique moom mu dem defi beneen liggéey parce que xalif général des mourides dafa am beneen liggéey bu gën a am solo foofu biñ ko bëgg a def loolu parce que suñ homme politique yi aussi récupérer rek ci la xëy di ci gont ba ngoon nañ ma baal na <laughs> voilà kon cinquante secondes ñu ngi lay euh, remercier bu baax a baax ah euh, fàtte laa laaj tuuti ci le fait que ngeen bëgg ñu euh, libérer tous les détenus politiques lan moo waral ngeen ne nañu libérer tous les détenus politiques mais parce que réewi démocratie détenu politique waru fa am or ñun li ñu seetlu parce que ñun aussi dañuy wax ak avocat yi xam nañ dossier yi un peu ainsi de suite dafa bari ñu nekk tey ci prison bi te waruñ fa woon nekk parce que dara taaju leen fa lu dul benn article cent trente neuf bu code de procédure pénale boo xam ne ku ñu bëgg doo génn kaso moom lañ lay wekk dem toog loola kaso par force et ci ñi ñi njëkk njëkku ci sax parce que mooy ñoom Bassirou Diomaye Faye mooy ñoom professeur Cheikh Omar Diagne mooy ñoom Aliou Sané mi ci mujj arrestation Aliou dañ koy ñaawlu di ko naqarlu parce que Aliou Sané warul def une minute kaso parce que Aliou Sané defu lu ko yóbbu kaso loolu il est ñu wax ko nit ñi mu leer nañ te même niñ ko arrêté Aliou Sané c'est un digne fils du Sénégal Aliou Sané dawul demul fenn bu ñu ko soxla woon convoqué ko mu ñëw buñ koy jàpp ñu jàpp ko mais ñu dem fekki ko ba këram di ko jàpp ci ay weti xale parce que droit mën nañ ko appliquer te coxor du ci bokk loolu dañ koy dénoncer dañ koy naqarulu te ñiy wax ci ñoom ne ni politique amu fi nañ noppi parce que arrêté wuñ seen mbokk laaj laajuñ avocat yi demuñ xool dossier yi lan lañ leen di poursuivre ñun ñi koy def ñun xam nañ ne am na ay détenus politique te détenus politique yi ñu ngi ñaan ñu bàyyi leen ñoom ñëpp nu ñu gën a gaawee nañ afal prison yi parce que ñi ci nekk ñi ci ëpp ci biti lañ war a nekk nañ bàyyi jaay doole bi ñu mën a dem ci élection boo xam ne dafay paisible indi jàmm ak salaam ñu mën a weesu lool xool nuñ développé Sénégal. merci kon Senghane Senghor ñu ngi lay remercier bu baax a baax. ok merci Ndeye Comba. Senghane Senghor Senghane Senghor ñuy fàttali ni moom moo nekk chargé des affaires juridiques foofu lay ci RADDHO di yëngatu ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama